taxaw bii ñu taxaw seen réew kon ñun mën nañoo am yaakaar kooku loolu il faut ñu féliciter leen ci seen taxawaay bi ñaax nag xale yi tolloog yéen ak parce que réew ay xale ñoo koy yor parce que réew mi su baaxee xale yi la baaxal bu bonee ñoom la bon parce que màggat ñi koy yàq moomuñu ko loolu mooy dëgg réew su baaxee xale yi la baaxal bu bonee ñoom la bonal ndaxte màggat ñoom wéy nañ ba pare li doon yoon sax mooy ñu dem toogee ne encadré xale yi bàyyi leen ñu doxal réew kon nag loolu moo tax yéen il fallait moo féliciter leen ci seen taxawaay euh, di wax ni lii nu fi dajalee lu am am solo la ndaxte Sénégal dañoo war a bàyyi euh, ñu jàpp ne xeex bi daa am ñun ko déjjee ñoo xam ne ñoom ñoo war a xeex ñi des nañ toogee ne sëñ Fall ah loolu lu ñu war a arrêté la parce que réew ñun ñëpp ñoo ko bokk te su yàqoo ëllëg ñun ñëpp ku si nekk fa nga toog di nga ci am ay regret mm-hmm. kon nag ñun ñépp ñoo war a am taxawaay lii nit ñi di di taxaw di ko xeex ku ci nekk da war a ñëw gis sa bopp te bàyyi ba a nekk toog ci salon yi ku nekk naan ñii de li ñuy wax dëgg la ñii de li ñuy def baax na te buñ la woowee doo ñëw. kooku sénégalais dañ ko war a bàyyi parce que réew mi su yàqoo parce que li ñuy kaas yépp ñun senegal ci lii la ne naam actuellement li ñuy xeex mooy ñun jàpp ci jaay doole ñu bàyyi leen. waaye même bu dul loolu réew mi bu teguwaatee ci yoon même lii nga xam mooy dundu seer gi ñuy kaas sax boobaa dina dakk hmm. parce que ñu koy jiite ko teg ci yoon. ñàkk teg yoon alalu réew mi ñàkk teg yoon démocratie réew mi ñàkk a teg yoon liberté bi xam moo war am ci réew mi nga am constitution moo na ko may loolu moo law ba réew mi actuellement mi ngi nërmeelu sénégalais ñi ngi toog di wax mais taxawuñu taxaw jàmmarloo ak ñi nga xam ñoom ñoo yàq réew mi te moomuñu dañ leen koo dénkoon diir ba jeex na wala mi ngi waaj a jeex ñu ne du fi jeex mais lu tax ñu ne du fi jeex di jaay doole nit ñi parce que ñii ñuy jàpp du ñooñu ñooy seen objectif l' objectif comme ni ko camarade Clédor waxee du ñu nee jàpp ñi nga xam société civile lañ bokk wala di politique te amuñ ci ay ndombay tànk yu mag ñin bëgg a jàpp ñëpp xam nañ leen wala kenn bëgg a jàpp ñëpp xam nañ ko Sénégal. léegi nag loolu muy waajal moo tax muy commencé di élaguer élaguer maanaam di dindi ñim xaal xàll yoon par rapport a ñi nga xam ne jàpp na ni ñoom ñoo ko na a yàqal loolu mu bëgg moom président Macky Sall. Mm-hmm. maanaam dafa bëgg a jàpp. képp koo xam ne leader nga boo xam ne en 2024 nar nga koo tere def. njombe bi nga am moom lay waajal te ñeme koo wax parce que ba léegi li mu bëgg waxu ko parce que ñeme koo wax parce que xam na ne sénégalais duñ ko nangu. léegi nag comme ñeme koo wax ñi nga ko dul nangu parce dans leur écrasante majorité d'accord maintenant nag comme d'accord te am na ñoom ñoom ñoo nar a taxaw di ko ñoo ñu la bëgg a faagaagal benn par benn di leen jël tëj ci kaso yi. bu paree nag doo ko songul leader politique yi waaw léegi nag kon leader politique yooyu nanga xam ne ci seen kaw la Macky Sall jëm. Hmm. en 2011 Alioune Tine wax ak ñun ñoo àndoon ak ñoom feu Ousmane Tanor Dieng Macky Sall mi tay et cetera ñuy xeex ne bu ñu laal suñu constitution président abdoulaye Wade mënta am troisième mandat place de l'Obélisque di marche ba ba ba ba nit ak ñett dee ci ba nga xamee ni conseil constitutionnel déclaré na recevable la candidature de Ablaye Wade waaw léegi ñun ñoo ne àndoon société civile ak parti politique yi di xeex pour aar suñu réew lu tax tey société civile bi doo ko fës ci xeex lañ doon def 2011 ba ba nga xam ni société civile bi dañoo ànd ñun ñëpp ak les partis politiques ak ñëpp di taxaw ni réew mi kenn jalgati yoon loolu la moo war a amaat kon société civile bi kese war ñoo taxaw di xeex ñii xeex ñëpp a ci war a ànd buñ ñu diaboliser naan non yéen ay politiciens ngeen àndal extra discours divisionniste boobu ñuy def c'est pour bañ ñu ànd la pour doole ji bari pour ñoom liñ bëgg a def duñ fi amee kon na politiciens yi waajal lii ñuy bëgg a def ku ci mënta ñëw yow sa bopp mais mën nga mobiliser ñun lim soxla mooy ñu mobiliser am taxawaay woon président Macky Sall ni réew mi moomu ko kon nag loolu la ñuy xaar ci politiciens yi te kii fii kenn gënu fi kenn. ñun nag duñ fi nekk ñu jàppee politiciens yi nit ñu taxaw xeex ñu jàppee société civile ñoom ñu toog seen i kër mel ni ñoo gën ñoo gën waa société civile. loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. ñun de xeex bii ñuy xeex pour sunu mbokk yi nga xam ne leen jàpp ci jaay doole te seen objectif moom Macky Sall du ñii waaye jéem leen a pour mën a jëm fi jëm la buñ seetaanee ñu yag ci kasso buñ fi jappé ay politiciens dañuy taxaw seetaan. lo il faut wax ji leer parce que wax ji ta neex. très bien dañoo bëgg ñu mobiliser wu ñoom ñëpp ku ci ne mobiliser say section ku ci nekk muy parti politique muy société civile ku yor association ku nekk une personnalité indépendante nga mobiliser say nit ñu def marche bu rëy euh, suba ci àjjuma ji bu 15 heures jotee à la place de l'obélisque ñëpp daje fa ñu def marche bu mucc ay marche bu rëy woon président Macky Sall ne ko génneel doomu jàmbali ci kaso ñu ngay jaay doon soo ko deful comme niñ ko waxee danañ maintenir la mobilisation jusqu'au sitting de la place de l'indépendance te booba nag bu boobaa jàmmaarloo mën naa mm-hmm. parce que am nañ droit sitting sitting fa danañu ko jéem a tere jaar ko ci seen arrêté tappale Ousmane Ngom bi mm-hmm. buñ ko defee dan jàmmaarloo am kon nag aujourd'hui li ñu bëgg mooy Macky Sall fi mu jëm hmm? Hmm? fitna la nar yee ci réew mi te loolu ñu ngi wax kilifa yëpp nañu wax ndaxte man fekkee woon naa waxtaan wa nga xam ni sëñ Mountakha moo ñu yónnee woon une délégation bu jógee Touba ka ko jiite woon di sëñ bas Porokhane man mii maa nga woon ca rencontre hmm. bokk naa ci personnalité ko fekke ñu toog ñu déglu ko ñu rafetlu kàddu ya sëñ Mountakha wax ñaan ñu ni dalal leen lépp dinaa wax président Macky Sall lépp dina dal dina génn ñëpp ñim jàppoon te dal dana am jàmm amaat ñun ñëpp ñu rafetlu ko fasaasa ñu nangul ko euh, sunu sang bu tedd bañ ko ko nangulee Macky Sall yeexal na génne ñam jàppoon sax waaye mu na leen génne toog ba mu nekk ko dem yokk li mu policier am yokk li mu gendarme am yokk ay armam wut ay char mel ni Sénégal dafa ne ci guerre léegi nag commencé waat jàppaat ñam bàyyi kon moom la mu diggee woon ak xalif général des mourides moom la dem xotti moom président Macky Sall lii mooy dëgg jaay doole nag la fi nekkee jaay doole nag duñ ko fi nangoo tey duñ ko fi nangoo ëllëg na bàyyi doomu jàmbari ñu ñibbi defuñu ko dara ñooñu mu jàpp ñëpp da leen a jàpp ci jaay doole bu dee Abdou Karim Gueye xorom xaat ak Cheikh Omar Diagne li ñu wax man mii wax naa ko lu tax jàpp ñu mu mm-hmm. li ñu wax mooy li imam nday wax bi muy dund imam ndaw moo ni man dañ ma doon bundu daal di ma torturer ci prison bi ñu ni kon loolee ñu ko doon def moo am jeexital ci yaramam ba tey ji mu génn àdduna lool la ñu wax waxuñu leneen imam ndaw ko waxal boppam wala léegi loolu ñu bëgg cee jàpp doomu jàmm di ko tëj Cheikh Omar Diagne parce teg na partem parce que Omar Diagne li gën a tax ñu jàpp ko du loolu moo ci imam ndaw li mu tax ñu gën koo jàpp mooy dafa teg parti islamisme c'est permis kum neex nga teg sa parti teg ni ko ci diine islam laa ko am nga ci droit ña ko gëm la bu élection même wax lool wadé day dem day dem mali ñu ni nono ki il est dangereux nañ ko téyé nañ ko téyé bal mu ñu andi li jafé jafé mhm. mais lool pourquoi lo jaay doole la donc bo jëlé bi ci melni Ousmane Diagne wax deug yalla man bima démé prison sété ko dañé mo monsieur parce que man sama élève la won Ali lay dané mo man defuma dara mu ni mo man dama tuma jaay ñu japp ma té ma ñëbalé kenn waxu ko ma ma jappé man ko do la wax dara parce que defo dara dan dan la ragalé xel rek dañ ko ragalé xel <laughs> mais defu dara lo tax mu ñu ko wax dara lu ko jappé boo jëlee Pape Ousmane Seck nga xam man xam naa ko ñoo bokk ñoo bokk dëkk Ngum ak yow mu ne ma man 60 000 francs la ma Akhenaton yónnee Akhenaton ak moom ñoo bokk benn baay xam naa seen baay Ibra Seck ñoo dend kër Ngum ak yow ñu jàngandoo ma ak moom école 1 nekkandoo di fowandoo ñu bëgg maa gëm loolu Ousmane Seck ab ab terroriste ñun ni Macky Sall moom mooy kan ba bëgg ñoo jaay doole du ñu yegg fu ne yàlla yëgul bu ñu ko nangoo ñun sénégalais ñàkk fay. nanu taxaw jàmmaarloo ak président Macky Sall de la résistance a sonné. on ne peut pas accepter que président Macky Sall nekk fii di ñu jaay doole di ñu xokkutal di jël suñuy doom ak suñuy sët ak suñuy euh, ak suñuy sœur ak suñuy euh, nijaay di tëj ci kaso bi ñun ñuy toog di seetaan kooku mënta continuer. kon nag ñi nga wax ni na sénégalais yi mobiliser wu ñu taxaw def marche mucc ayib mu génne leen ci nii wala ci su ko deful. suñu mayee ñu ñu sursoir à la mobilisation bi ñu waroon def à partir de l'université jusqu'à jusqu'au rond-point de la Médina suñu suñu sursoiré boobu le 4 novembre ñu taxaw nag def sit bu rëy à la place de l'indépendance su ko mayee ñu dem def ko su ko mayewul ñu dem def ko lii laa jàpp ne bu ñu ko parce que Macky Sall li mu bëgg a def nii kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg jaay doole donc lay def ñii mu tëj ci kaso bi ñu dara ay ay gor yu set wecc la nekk ci réew mi nekk ay xale yu ndaw mu bëgg leen a jaay doole kooku kenn waru ko fee nangu donc encore une fois